di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñun mu waa mouvement religieux pour l'émergence tubaarakallahu mooy mbooloo mu jëkk mii fa tubaarakallahu taxaw di ay kilifa waaye di ay imam waaye di ay boroomi xam-xam di ay sëriñu daara ñu teew nag di sargal ki nga xamante ni bii moo di président alhaaji Macky Sall di ko ñaanal suñu boroom yalla na yàlla gën koo sàmm président gis nañ sa taxawaay ci réew mi képp kuy doomu dëkk bi te amal dëkk bi njëriñ fa tubaarakallahu yaa ngi koy bàyyi xel te nag ku war naa yàgg naa ko wax ku la nekkal ci kër gi nekkal ko ci naaj wi wala ku la nekkal ci naaj wi nekkal ko ci kër gi ku ne gis na Ousseynou Diouf tubaarakallahu ni mu la yàggal nekkalee ci naaj wi suba ngoon guddeeg bëccëg di doomu Thiès amal dëkk bi njëriñ waaye amal askan wi njëriñ waaye ulama yi tamit mu amal leen njëriñ amal mouvement religieux pour l'émergence njëriñ fa tubaarakallahu looloo waral bi nga ko bi nga waa Thiès yëpp yëg ko waa adduna yëg ko waa mouvement religieux pour l'émergence jël seen kaddu ni kat président kon bàyyi na xel ñi nga xamante ni bii ñu ngi koy liggéeyal suba ak ngoon guddeeg bëccëg Ousseynou nag doomu dëkk bi la amal na dëkk bi njëriñ te nit ku baax la te nit ku baax moom fa tubaarakallaahu nga wax ko lu baax moog jàng alquran na yem te El Hadj nu Diouf nit ku baax la am na taxawaay mbooleem kuy sëriñu daara mbooleem kuy imam mbooleem kuy ulama loxo Ousseynou nday jooram tegg teggikuwul ci yow bëccëg kon du def lu dul président doomi kees yu mel nii nag ñu ngi nii ku mel ni El Hadj Ousseynou Diouf tey ndax wolof nee na ku aayewal sa moome Ousseynou rek ci taxawaayam Ousseynou ci engagement am waaye Ousseynou ci fonk gi mu la fonk waaye liggéeyal gi nga xam ni moom la lay liggéeyal ci askan wi kon président ñu ngi lay ñaan na ko gën a teg logo ndax am na koo xam ni boo ko gënee teg loxo incha allahu li nga bëgg ci réew mi. bëgg ko ci Thiès suñu borom dina la ko defal ñun ne Thiès la ñu dëkk fii la ñu am bu ñu deewee fii la ñuy suul ku fi def lu baax ñu wax ko ku fi def safaa nit ñu am fitu taxaw engagement ni la kat lii nga def du nii du nii ba luñ ci góobe gar ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu allahuma ala sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil mayami fa tabarakallahu grand sëriñ tabarakallahu mbay ñu ngi lay remercier ci kaddu yu rafet yi kàddu yi nga xam da nga koo jëmale ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi mu yorin mu yor ko yorin wu rafet wu tegu ci yoon fa tabaarakal asunu xaali xëy na bu ma dee dama naan la président social mhm. envers la la la la la communauté musulman mhm. ñun nag le mouvement religieux pour l' émergence mhm. fa tabaarakal ñoo taxaw nii imam Omar Deme mi ngi nii mu baax mi ni suñu bopp ay la imaam El Hadj maam ma Baye Mori Mbuub mhm. El Hadj Dame Sakho fa mhm. tabarakallahu ak imaam imaam Ibrahima Ibrahima Ndiaye Dabay mu Serigne Mor Ndiaye Dabay ak sëñ Ousmane Ndiaye Dabay borom xam-xam bi mhm. ak man mii El Hadj fay Faye ñoo yëkkati kaddu kaddu lan la kaddu cant kaddu lan la kaddu delloo njukkal xutbul watani min al imaani ki gën ñëpp moo ko wax Ousseynou Ousseynou Diouf waaye président xam naa ne dégg na sa suñu wax dëgg na it ndee yi xam na li xew ku mën a dimbalee la dimbale na l'islam bi dimbale na jeunesse bi dimbale na femme yi dimbale na ñëpp pour juróo ci dëkk bi nag nga recevoir ko ñun mouvement religieux pour l'émergence li ñuy wax les paroles de remerciement waay waay dañ la koy santé ginnaaw bu ñu santé yàlla mu baax mi julli ci bi bi Ousseynou daal xam naa ne gis nga ko ndax ko ku la saful doo ko recevoir ku la ku ku jàppul yoon wi nga aw doo ko recevoir recevoir nga ko mu neex na ñun mouvement religieux ñu bëgg nag waay waay sédd ko ñu ngi sédd ji nga xam ne ñoo la jige asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu Música